واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu téléspectateur téléspectatrice auditeur auditrice yi nga xam ne yéen a safo saxoo di topp seen télé réew mi TV rawatina seen émission bii ñuy wax keppaaru mag ñi dimanche bu jot ngeen di ko am 22h ba baaxoo ci ànd ak seen mbokk sëriñ Baara Mbàkke ñoo ngi leen di nuyu ginnaaw ba ñu santee yàlla kennal ko na mu yellee ci jëmmam jëta as njaamam lott ci lool di julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wa taqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko xéewalug yàlla ak kóoluteg yàlla yàlla na nekk ci moom moom mboolem ay saxaabam ak taabi'a yi ak taabi'a taabi'a yi noonu la ñuy suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di leen nuyu nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo bi lislaam bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole nuyoo boobu mooy nuyoo bi tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke nuyoo boobu mooy bi nga xam ne waa aljanna moom la ñuy nuyoo nuyoo boobu mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox a Cheikh Mouhamadul di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko nay naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seeree li mu yéenee liggéeyal umma islaami bi yàlla na yàlla sàmm ko ba mottali ko nuyoo boobu moom la ñuy yóbbu Tiwaawoon jox ko mm, euh, suñu wëjur Seyd Aboubacar Sy Mansour nuyoo boobu la ñuy yóbbu Njaasaan nuyoo boobu moom la ñuy yóbbu Canaba waaye nuyoo boobu it moom la ñuy yóbbu Medina Baye waaye nuyoo boobu it moom la ñuy yóbbu euh, Léona Niassène nuyoo boobu it moom la ñuy jox suñu wéyjur Thierno Basir Tall mi nga xam ne moo amee jataayu maam Cheikh Omar Fouti waaye nuyoo boobu it moom la ñuy jox umma islami bi yëpp nuyoo boobu it moom la ñuy jox mboolem dëkkandoo yi nuyoo boobu it moom la ñuy jox képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu ak foo ko mën a déggee ci biir réew mi ak ci biti réew. seen émission keppaaru mag ñi seen mbokk Sëñ Baara Mbàkke ngeen ko baaxoo baaxoo àndal dimanche bu jot waaye ñu baaxoo koo defee ci forme bi ñu dajee fi waxtaanee kenn ci suñu mag ñi. suñu mag ñi mooy ñi nga xam ne bi yàlla joxe lislaam alayhi salaatu wasalaam mu bay ci waaram bi muy dem dafa am mission bu ñu dénkoon mooy jotal leen li ma yàlla yónni ci yéen bay leen ci seen waar donte benn aaya la balligu anni walaw aaya loolu la denkoon saxaaba yi saxaaba yi dénk ko taabia yi taabia yi dénk taabia taabia yi jokk jokkal googu moo dem ba agsi ci suñum réew waaye suñuy mag yit nag def ci liggéey bu rëy ndax kat bu lëkk al lekkee alom na ko gërëmee coy ndax kan moom mi yëg ca kaw garab ga gësëm ko ba mu wadd mu man cee jot suñu mag ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo jot ci lislaam te mujjee wuñ puso bi mu réer ñooñu ñoo ñoo ñoo wuti xam-xam bu ñor waaye bu leer boo xam ne moom lañ jàngal suñuy maam suñuy maamaat jàngal ko suñuy baay suñuy baay jàngal ñu ko ba ñun ñu judd doon ay jullit waaye ñu nàmpatal ñu ci bañ man cee jariñu mag ñooñi ñoom la ñuy fàttali ko ci suñu émission bii di keppaaru mag ñi di fàttaliku seeni jikko waaye seenu dund waaye seeni jaar-jaar waaye di ci fàttaliku seeni bind noonu lañ ko baaxoo ñu ko baaxoo defee incha allahu taala tey noonu lañ ko fas yéenee defee duggaat génn ci kër yi diine waaye fàttaliku boroom xam-xam waaye fàttaliku waliyu yàlla waaye fàttaliku ku bari ay karaama incha allahu taala xam naa dama koy denc ba dellu siwaat comme ni ma ko baaxoo defee incha allah surprise bi waaye ma fa yéene cee ànd ak sama mbokkum daara Serigne Cheikh Tidiane Ndiaye Serigne Cheikh Tidiane Ndiaye moom it di borom xam-xam bu baax bu mag buñ xam incha allahu taala xam naa dama koy jox mu nuyoo rek su ko defee incha allahu taala ma daal di dikk nag ci kilifa wala bokk ci kenn ci suñuy mag ñi nga xam ne moom laa indi wala yu yàlla wi nga xam ne tey moom laa indi ñu fas yéene koo waxtaani fas yéene jàngat lenn ci ak dundam Serigne Cheikh Tidiane fal tatafaddal mashkura alhamdulilah jërëjëf Serigne Baara ñu ngi lay nuyu di la siyaare alhamdulilahi man sil hibbi min karamin mm-hmm. bahran muhitan bi diinil haqi wal hikami mm-hmm. salal majiidu bi taslimin bila adadin xali wal aali wal aswaaji wal buhami sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam hasin maqaali bila kibrin wala kasibin muqadiman sidqana yallaahu yàlla mhm. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Ba ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel di nuyu mboolem ku ñuy seetaan wala nga ñuy déglu foo mën a nekk ci àddina bi waaye nuyoo boobu ak siyaar bi ñu ngi ciy jiital sunu kalifa alxalifatul haam di taayifati xamari yu ak Cheikh Sidi Mouhamadul Basir yal na fi yàgg lool te ànd ak jàmm waaye ñu ngi nuyu di siyaar mboolem ay rakkam ak mboolem ay setu Sidi Alaaji Mandaw ak ay mboolem muqadam yoo xam ne ñu ngi ci réew mi wala ci bitim réew waaye ñu ngi nuyu di siyaar mboolem jullit boo xam ne yaa ngi ñuy déglu di la wax ne bëgg nañ lool kontaan nañ lool ci teew bi ñu teew file ci jotaay bu mag bi la insha allah barakallah waaleykum nuyoo bu baax a baax a baax a baax. Mm. jataay bi seenub jataay kër gi seen kër. Mm. Euh, liggéeyu lislaam bi nii la demee. Mm. ñu ngi sàkku yi ñu ñaanal borom kër gi alxaaji mbañik ak mboolem njabootam gi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi ndax kat lislaam ji lii moo koy yaatal euh, waxukaay gu mel ni bu àdduna bi ne dégg suñ kàddu ba man cee jariñu lu mu néew néew néew néew néew néew nañ ko sante alxaaji Mbagnick Diop moom mi nga xam ne moo taxawal barabu liggéeyukaay bu mel nii mm-hmm. waaye tedd ci lislaam ji cër bu toll nii mm-hmm. waaye tedd ci mag Mhm. cër bu toll ni mhm. ñoo ngi sàkku yi ngeen ñaanal ko bu baax a baax di ñaanal it xalifa Cheikh Mouhamadul Bachir mhm. bi nga nga xam ne moom mooy xalifa Seydil Haaji Omar Ndaw waliyu yàlla woowu nga xam ne mi ngi féete woon ci wet gi ngi wax Saalum gars yi yàlla yi noonu lañ mel yàggul dara rek émission bi ma mujjee def ci mag ñi wala bii weesu bi ko njëkk rek maa ngi doon waxtaane Seydil Hasan Salaam mu doon kenn ci góor yàlla yi nga xam ne mi ngi dëkkoon fii ci Bawal waaye mujje njaarim ci ay xar xarbaaxam ak ci ay kemaanam mm-hmm. ak fi ko yàlla jaarale mm-hmm. keroog waxtaan nañ ci def nañ ci émission bu am solo am solo am solo macha allah mm-hmm. noonu ñu ko defee woon nag incha allah noonu lañ ko fas yéenee defeewaat junju nga ko góor yàlla gi ñuy waxtaani mooy kan mooy alhaaji omar ndaw alhaaji omar ndaw ñu ngi ziyaar bu baax a baax mboolem ak njabootam di leen di ñaanal xalifaam Cheikh Mamadou Basir moom it suñ boroom dëgëral ko te sàmm ko moom mboolem ak njabootam di di ziyaare mboolem muqaddamam yi nga xam ne nekk ci biir réew mi ak ak ci bitim réew mhm. xam naa Serigne Cheikh Tidiane mhm. waxtaan yi ni ñu ko fas yéenee tëralee mooy ni ñu ko baaxoo defee mhm. mooy gaa yu baax yi boo leen di waxtaane li jiitu mooy dañuy waxtaane ñoom ñan ñooy seeni askan ndax kat wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi alayhi salaatu wasalaam sunu borom bi mu ko nammee wàcce ci kaw suuf da ko tànnal ay maam da ko tànnal ca àddinaan jaar ci yi jaar ci ay maam ba nga xam ne moom alayhi salaatu bu ko indee wàcce ko mu bokk ci giiru Quraysh su boobaa deesul am wet guñ ko mën a jamee looloo tax alayhi salaatu wasalaam daan wax ne samay maam ngeen koy lim ba egg ci àdduna taxaw leen foofu doy naa yem kon alhaaji Omar Ndaw mm-hmm. mii nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee mm-hmm. moom ñan ñooy ay wéyu juróom mm-hmm. ak fan la ganee àdduna ci yan at <coughs> ok jërëjëf sëñ Baara xam naa ñu ngi rafetlu jotaay bi bu baax ak kër gi jërëjëf di ñaan yàlla mu wàccee fi barke ak xiwal. ndax wax dëgg yàlla lii moom rëy na si ñun. alhamdulilah nañ ci lool te dañ ci ñaan incha allah. alhamdulilah ndax réew mi TV. Mhm. avant yaakaar naa réew mi quotidien moo amoon. Mhm. xam ne dañ ko doon bu baax. ak réew mi FM ndeysaan réew mi FM. Mhm, yooyu yëpp ñu ko doon am na. barakallah kon nga xam ne ñun yàgg nañuy topp kër gi. alhamdulilah yàlla dogal na ñu ñëw fi. alhamdulilah te bi ñuy ñëw itam avant ma lay gis oto bi ma jël. taxi bi ma jël. rajo bi la jàpp baarakallah alhamdulilah ndax yàlla alhamdulilahi rabbil alamin yàlla boole nañu fi alhamdulilahi rabbil alamin incha allah bu ñu fi bayee ko incha allah dañu yëg ne li wolof yi di wax naan jàpp bés yi mooy si daraji man ndaw mm-hmm. fu ñu ko teg rek dana fa ruus ndeysaan baarakallah waaw waaw yàlla ruus si kër ndeysaan ah, ku yàlla yëkkati mbiram mm-hmm. ku yàlla dénk ay secret mm-hmm. ku yàlla jubal jaarale ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam ku daan jubal ay jullit mm-hmm. ku jàngale diiru dundam yëpp mm-hmm. ku tabe mm-hmm. ku jub ku xàmmee ku mën a muñ ku am yërmaane moom nga ma laaj muy Mawlana Sidi Alaaji Man Ndaw radiyallahu barakallah radiyallahu anhu eh, Sidi Alaaji Man mu ngi gënee jamono dëkk bu ñuy wax Ndaama Ndaama Ndaama Ndaama tey boo demee Daaru Salaam nga xam ne moom la ko ñëpp xamee diggante Daaru Salaam ak Ndaama. Mhm. fukki kilomètre la. fukki kilomètre la. Ndaama googu ay waajuram. Mhm. yàlla moo leen fa dajale. Mhm. waaye dëkkuñu fa. ndeysaan. ci mbiru yàlla rek. ci mbirum ngi tudd xali yu daaw a ndaw. xali yu daaw a ndaw. waaw xali yu moomu dëkku Ndaama. waaye moom ak waajuram wu jigéen. ñoo gàddaayee ndukumaan. Mm. way juróomu jigéen ñu koy wax daaw a toog moo xëy rek mm-hmm. ju ndaw ñu koy wax a ndaw mm-hmm. boot ko di wër ak moom xam fu mu jëm mu mel ni ku yàlla génnee ci ab euh, gox la mm-hmm. di ko yóbbu ci ab gox di ko yóbbu ci gox ndeysaan barakallah mu bayeekoon ko man ca région Kaffrine di yendu di fanaan te booba li gën a doy waa dañuy wax ne jamono boobu jigéen buy dox te anuta góor gu mat mu kalaf ñu xam ne jëkkëram la dañ koy jàpp def ko jaam jaay ko ndeysaan ci tund wa loolu moo fa amoon. ndeysaan yàlla nag xaar na ko moom. Mm-hmm. xaar doomam ji nga xam ne ñaaraat ci laam dafa dafa fer rek. Mm-hmm. muy wër ba egg si ndaama. Mm-hmm. nga xam ne lu mu gàtt gàtt war na mat juróom fukki kilomètre. juróom fukki kilomètre. waaw muy diggante ndukkumaan ak ndaama. waaw fa mu bawoo. ak fi mu fi fi fi mu ñëw daal fi. dëkk bi mu ñëwee xamul fi kenn. kenn xamul ko fi bokkut ak kenn dara. làkk bi ñuy wax déggul ko. ndax moom bi muy ñëw séeréer la doon wax. yàlla dogal ba mu ñëwee ba foofu ndeysaan genn góor jël ko fa ndax gis na ni ci mbedd mi lay fanaan mhm. te guni gu ndaw la amee mhm. góor googu moroom borom dëkk ndaama jamono jooju ñu koy wax mhm. moo ko jël indi ko këram yor ko fa yor doomam ndeysaan mu wan ko ne bëgg na koy def soxna soxna si nangu mu def ko soxna ndeysaan Samba Ndiaye moom moo yar maam xaali daawa ci dëkk bi moom moo yar maam Aliou daawa muy wajur si ma ndaw góor ba jàng jot mu dalal ko jàng. Mm-hmm. yàlla ubbi dënn maam aale mm-hmm. ba mokkal alxuraan. barakallah. mu mu laajte fii kan moo fi daa ko tafsir ñu yemal ko si benn dëkk boo xam ne. Mhm. ci seen côté la nekk. Mhm. sëñ Daara ba fa ne ñu koy wax sëñ Daara Moussa Daraame Moussa Paate. sëñ Moussa Paate Daraame waaw Moussa Paate seexu sëñ Tuubaa la sax. xam naa ko xam naa ko ko siiw la ndeysaan moom mooy mhm. borom Daaru Pakacar. waaw. kooku moo tafsiral alxuraan. maam xaali daaw. ndeysaan moo ko jàngal li ëpp ci téere xam-xam yi. seetal la ba mu bokk ci borom xam-xam yi. barakallah kon way juróom mu góor noonu la demee. way juróom mu jigéen it dëkkut fa. way juróom mu jigéen ñu Aïssatou Ndiaye yaayam mu ngi tudd. Mm. Euh, Fatim Sarr. Fatim Sarr Fatim Sarr moomu itam. Mm. région Fatick la bayee ko ca Siin. Siin waaw. moom itam séeréer la. ndeysaan bi muy ñëw déggul wolof. Mm-hmm. Fatim Sarr moom moom itam. Mm. yaayam ju jigéen la àndal. yaayam la àndal mu ñu koy wax koddu luum. koddu luum koddu luum moom itam moo xëy rek. boot doomam ju jigéen ñuy wër. ndeysaan ba egg si ndaam nga xool diggante boobu lu mu gàtt gàtt war na mm. mat juróom-ñaar kilomètre wala téeméer kilomètre waaw moom kay sori moom <laughs> itam yàlla aar na ko sàmm ko ba kenn jàppul ko def ko jàpp ndeysaan bi mu ñëwee ba si dëkk bii dafa toog mm. amul fi kenn mu ngi fi doog a ñëw amul fi mbokk waaw moom itam ki nga xam ne moo fa tenewoon ci xam-xam si jamono jooju yoroon mm. jàkk ja mm-hmm. ñu koy wax maale xojo kura kooku it moo ko jël amee ko këram mm-hmm. moom ko dulluum mm-hmm. ba doomam ju jigéen ji ma wax la màgg mm-hmm. muy Fatim Sarr mu ñaan ko ko muy soxnam mu def ko soxna moom Fatim Sarr moom moo jur maam Aysatu Njaay maam Aysatu Njaay mooy waay jur Sidi Aji Mandoobu jigéen kon ñaar ñi ko meññi ci ab dëkk biñ dox dajee lañ dëkk waaw te xamuñ fa xamuñ fa kenn. Mhm. mais yàlla ci mayam bu bëggee maye may gu rëy. daaw comme li nga wax day tànn. day tànn dafa dem jëli ca Chine. Mhm. koo xam ne bu muy génn di bàyyi ay mbokkam tàgguwu leen. tàgguwu leen xamuñ gisee théâtre ndeysaan mu dem ci ndukumaan. Mhm, ca Saalum tibbee fa it góor. <laughs> Uh-huh. dem ca Chine tibbee fa jigéen. Uh-huh. ñëw dajale leen. dajale leen ci benn dëkk boole leen ci boo xam ne dëkkuñ fa. Uh-huh. waaye ñu far dëkk fa. ba Sidi Alaaji Mandaw ganee fa àdduna. la ilaha illallah. kon loolu mu ngi jàngale ne kii nii tey ma bëgg indi si yéen mhm. nit ku màgg mbir la maanaam tayit wajaalakum wajaal wajaalnaakum suuba wa qabaila jooju li a jooju jeex na ñu moo ko ñëw <laughs> ke moom moo ko daal di ndeysaan ñun mhm. ñoo ko meññ mhm. kon moom fekk na baayam mokkal na alxuraan jàng na xam-xam tafsiral nañ ko alxuraan ba moom bi muy gën a àdduna fekk na baayam ñu def ko imaam te dëkkut fa ndeysaan kon Siraaji maanaam bi mu ñëwee mu ngi gën a jamono ah, baarakallah ca Ndaama ca ndaama baayam jooju itam moo ko jàngal alxuraan muy maam ali daaw daaw maam ali daaw moo jàngal si daaj maanaam alxuraan daara ju mag la yoroon foofu toorkal fu kalifa gu mag baarakallah moo ko jàngal ba mu mokkal alxuraan mhm. ca fukkaat mhm. bi muy am fukkaat mhm. mën naa bay na xew say ni ndaama fu mu placé ci Saloum yan dëkk la gën a jege. ndaama tey. bu ma la waxee Daaru Salaam bi Sidaaj maanaam moom ni mhm. nga xam ne tey commune la. Mhm. tey fa si Sidaaj ma ndaw ji gënee mhm. fi mu mujj dëkkam bi mujj dëkk. la yàlla def commune mu ëlif dëkk bële. mu yëlif dëkk bële. waaw waaye tey mu la wax ndaama tey pour nga xam ko. dëkk bi ñëw Touba Saloum. Touba Saloum. waaw ba Alaaji Basiir Seck. waaw diggante mag ndaama dëkk dooru ci. baarakallah soo soo bayee koo ci côté Maabo. bi ñuy wax Wanaar. wanaar waaw daaru wanaar waaw itam soriwut ak ndaama lool. ndeysaan ndeysaan boobu ci la ndaama. baarakallah xam naa ko jërëjëf waasin <laughs> uh-huh. léegi kon moom. Uh-huh. baayam moo ko jàngal alxuraan. Uh-huh. ba mu mokkal alxuraan. baarakallah ndax nee naa la baayam bu mu ne la mokk na alxuraan. si laaj ma non moo ko bindi moo ne baayam mokk na alxuraan. ndeysaan dafa lëggee benn téere ba muy jeex muy tagg baayam mu ne. ki doon woy téere bi de xomar la tudd. xomaru najlu sayxil xali yi. alxaafisi mufassiri sikki. alxaafisi. alxaafisi. alxaafis almufassiri zakki noonu tagee baayam <laughs> maanaam ku wattu la waaw ku tafsir alquran la waaye ku ñaw la it waaw <laughs> baayam <laughs> jooju moo ko yar hmm. jàngal ko lenn si xam-xam waaye li gën a yéeme si njàngam si dalaa jëma ndaw hmm. mooy si fukki at la man alquran hmm. mais bi mu mënee alquran rek du dafa dafa mokkal alquran rek ñu jàngaloo ko téere xam-xam yi loolu nag li li ma li ma mës a dégg man wala ma gis ko. ñu mm. bind ko. Mm. mosuma dégg kuñ tafsiralee noonu. Mm. maanaam moom bi ñu koy tafsir alquran. jumtuwaayu arab yi jàngul si dara. la ilaha illallah boo jàngul naxu barakallah sax euh, téere fiq yi sax jàngul. Mm-hmm. maanaam bi mu mokkalee rek. Mm-hmm. baayam dafa xam ne kii am na lu ne si moom loo xam ne. Mm-hmm. su may wax muy dégg du fàtte. baarakallah parce que daf ne yàlla moo ko jox fahmu ci alquran. fahmu waa ndeysaan wa ëhti nii fahma quraanin. wa sunnati. muhtadiyan waasilan yàllaahu yàllaahu ku wax loolu El Hadj Omar <laughs> danañ si ñëw ci téere téere yi nga xam ne liggéey na ko baarakallah dafay net leen nit ñi ne man yàlla moo sàmmee ba julli tisbaar mm. dafa am ci genn ron guy gu mooy toog mm-hmm. baayam fekk ko fa fekk mm. baayam jiiti na si jàkk ji ba pare ñëw fekk ko fa mm-hmm. mu tëri bindam subam bi mm-hmm. mu jox ko bindam ngoon mm-hmm. mu continuer di sàmm nag yi ba ngoon bu jox see ba yeew nag yi baayam fekk ko ci gétt ga mu tëraat bindum ngoon mu daal di tëri bindum ngoon allahu akbar noonu la xam ne dafa boole woon jàng ak liggéey ah, ah, ak tarbiya waaw ah. noonu la noonu noonu noonu la def barakallah tafsir bi noonu la bu sàmmee ba jullitu subaar am na ba léegi boo demee garab ga dañ la koy wan la ilaha illallah bay tuddee Guy Omar Ndaw ci genn guy bu mag fa la daan mm. toog mi ngi nekk ci diggante Ndaama ak Daaru Salaam waaw mm. boo fa demee mm. ba léegi mu nga fa barakallah la daan toog fekk ko fa mm-hmm. di ko mm-hmm. tafsiral di ko tafsiral alquran lu mu wax du ko ko laajaat ndax fahmu la am barakallah lu mu wax rek xam na ko barakallah ba noonu la tafsir bi matee mm-hmm. bàyyi am dalal ko téere xam-xam yi mu jàng ko ab diir baayam xamal ko ne man nag sama mbir pare na damay dem sama doom yi kenn mël si gën a ndawe ndax am na ay mag waaw. waaye ah, am naa yi du ah, du taawu. góor gi Ali ndax gi taawam mu ngi tudd Ababacar. Ababacar ndax góor gi xal yu la tudd. Mhm. taawam Ababacar la tudd. Mhm. ka ci topp Ousmane. Mhm. ka ci topp Omar. laa ilaaha illallah loolu yi dee daanaka <laughs> xulafaaw raasi bi. moo nekk këram rek moo nekk këram rek. laa ilaaha illallah ndax moom Aliou la tudd. <laughs> moom Aliou la tudd taawam Ababacar. Uh-huh. Uh-huh. muy Omar. laa mu mën a mu gisee ak man. Uh-huh. benn xat moom fi dese te yow laa gën a wóolu mm-hmm. su ma fi bayee ko yow laa bëgg nga huutu ma mm-hmm. yow laa bëgg nga jiite ma mm-hmm. yow laa bëgg nga rob ma ñaanal ma baarakallah léegi si daaj ma nag mu ne dafa xool li ko baayam defal mooy moo ko jàngal génn moo ko jàngal ak ni mu ko jàngalee moo ko tafsiral jàngal ko lenn ci xam-xam léegi li mu bëgg fayee baayam mooy day bindi kaamil boo xam ne day dem ci xàll ba bindi ko wala mu xebal ko ci ab dëkk mu bindi ko jaay bu bàyyam gaañoo mu sànni ko kaamil boobu man maa ngi man mii di wax ak yow nii. la ilaha illallah loolu si mbiru yàlla si si si mbiru yàlla rek. wa taala ndax li ma lay wax nii ren la am demiraat. c'est 1923 la bind kaamil boobu ba la ilaha illallah. mu wax bàyyam nag dama bëgg nga xebal ma. Mhm. foo ma xebal ma dem fa dama bëgg bind kaamil. Mhm. bàyyi ji ne ko xebal naa la balangaar. balangaar balangaar waaw. Mhm. ci côté Gambie bi noonu. ci wetu Gambie. mu yebal ko ci koo xam ne. baayam moo ko doon jàngal. taalibeem la. baarakallah mu dem fa. Mhm. def fa weer. Mhm. ak lu teg bind fa kaamil. baarakallah kaamil boobu muy wër di ko jaay. Mhm. ba mu jar. mu jënd si càngaay. jënd si cër sërica. ñëpp si ndaama. bi mu ñëwee nuyu baayam baayam waxul ko ana kaamil bi mu doon bind. kon baay ji xam na. xam na li xam na li mu bëgg a def waxul ko dara. <laughs> c'est te te te te nga xam comme ñoom seen mbir du doon lu yumpi. wallaay xamante ne ñoom seen mbir c'est mu teg ci ay fan rek. baa ji yàlla wàccee juróom daal di wàcc léegi kaamil boobu noonu càngaay googu moom la ko moom la ko laxasee. baarakallah moom moom moom la maam Ali yóbbaale. am na solo am na solo Serigne Cheikh tiijan mm. kon xam nañ ne alhaaji omar ndaw way juróom Seydina Ali ndaw la tudd ñu daan ko wax Seydina Ali daawa mi ngi feeñ jamono 1901 ci dëkk bu ñuy wax ndaama mhm. ci Saloum mhm. baarakallah moom alhaaji omar ndaw mhm. euh, way juróom bu jigéen nit yaa ngi wax ne moo way juróom bu góor ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk dajee ndaama dañ doon wut yàlla ba dajee si ndaama loolu am na ci lu mu ci xaw a niróo leeg Seydi Hadji Malick <laughs> ndax maam Ousmane yaakaar naa ne fa maam faa wadd di weli dëkk mhm. moom mhm. Euh, jàggi ab téere ko fa yóbbu woon wala seeti wóllëreem waaye nekkul ne dafaa dëkkoon waaye dafaa dem suñu borom dogal ñu may ko fa soxna suñu borom dogal mhm. mu bàyyi fa am njéemur mhm. joxe ndigal ne bu ganee àdduna nañ ko tuddee Thierno Malick Sow mi nga xam ne moom moom la gane si woon kon am na lu mu ci niróoleeg Seydi Hadji Malick yal na yàlla boo yal nañ yàlla fayal ñu leen góor gi nga wax ne moo ko tafsiral it muy mm. sëñ Bousso Pathé Darame sëñ Bousso Pathé Darame moom it kenn la woon ci xam Saalum ci borom xam-xam yi la bokkoon mhm. mhm. ak euh, sëñ Babacar Djibo ak Seyd Baara Taal ñett ñi mhm. wala boog ñeent ñi 1912 mhm. ñoo ñëwoon siyaari si woon sëñ Touba ci njaarim mu joxoon leen digal màggal Poroxaan ji ñuy waaj le 25 janvier mhm. ñoom la sëñ Touba njëkk a jox ndigal li ci 1912 ne leen bu ngeen demee na ngeen ñaar fukki fan yaakaar naa ak juróom benn la leen waxoon ci jumaadal ula wala boog alxamis bi mujj ci weeru jumaada saani yi jumaada saani yi bi ñu nekk nii la leen sëñ Touba joxoon ndigal ne alxamis bi ci mujj mm. dee leen dajee ca barab ba di jàngal si euh, alxuraan loolu moo moo sabab mm-hmm. màggalu poroxaan bu dee sëñ bi ndigal li mu ci joxe mm-hmm. sëñ Bousso Paté dara mii la ko joxoon ak sëñ Babacar Jibo mm-hmm. ak Seyd Baara Taal yaakaar naa ni loolu la ni sëñ bi waxoon daf leen jumaa de saan yi alxamis bi ci mujj dee leen dajee ca barab ba di ko jàngal alxuraan loolu moom it mm. muy muy muy xissa muy muy loo xam ne lu am solo la ndax ci weer wiñ koy waxtaane mën naa ni mooy weer wi leen sëñ Tuubaa joxe woon ndigal ñuy ñu ñu ngi siyaar ziyaare ak njabootam bu baax a baax a baax a baax moom it di ko ñaanal yàlla fay koy yiw waaye kiimaan gu am solo mooy que ni mm. euh, suñ borom mooy mm. maye tey njaboot mm-hmm. ñëpp sa njaboot lañ. Mhm. waaye euh, léeg-léeg euh, nitu yàlla. Mhm. mooy xam kenn ku ci nekk la yàlla def ci ak njabootam. maanaam ñëpp ay njabootam la ñu doon. waaye biir njaboot gi nag kenn ku ci mhm. nekk ak la ko yàlla defal. ndax koo xam ne mu daanaka mën naa ne say njaboot ñi ci ëpp ko mag. Euh, nga dénk ko dénkaan bu mel noonu. ak yitte ji mu am. ba joxe maanaam am yéene wutal waajuram ak càngaay. tax mu ne day bind kaamilu alxuraan fi mu ne nag léegi nekk jamono moo toll foo xam ne <laughs> boo toogee ci tele bi naan bind na kaamilu alxuraan mhm. maanaam nit ñi mhm. xamuñu xamuñu alxuraan xamuñu dayo bi sax xamuñu dayo alxuraan maanaam bind alxuraan ku ko deful rek. Mm, ku ko deful rek xamoo dayo bi ndax li ci nekk ci ay coono. Mm. alxuraan ak ni mu sewee. ak ni mu baree. Mm. ak ni mu baree ay runge. ñu ne diw bind na kaamil alxuraan. léegi nag xam nga réew mi moom suñu borom dalee noo may. dalee noo may ci alxuraan. moo tax daanaka boo fi toogee naan bind na kaamil alxuraan. ki xamut ki xam alxuraan dëgg dëgg dëgg dëgg. mooy xam yitte ji. ji nit ki def ci bind al kaamil alxuraan. Mm-hmm. ndax ak lu mën a xew rek. jën jënd càngaay. waaw. jënd càngaay mhm. moo gën a yomb bind kaamil alxuraan di ko jaay di jënd càngaay wallaay wallaay wallaay waaw ndax càngaay moom xamuñu ci lu weesu perkaal wala malikaan wallaay wallaay te perkaal mhm. wala malikaan lu mu ci man a doon daanaka mètre bi jërul lu ëpp ñaar téeméer loo ci mën a soxla yin mënta romb sept mille waaye ki def yitti ci bind kaamil alxuraan mhm. ngir njëgu kaamil alxuraan mu jëndee ko càngaay kooku maanaam yitte la uh-huh. loolu loolu loolu himma oliya yàlla loolu yitte ñu kawe kawe kawe kawe la yàlla yàlla fayal ñu ko xam naa ñaareelu laaj bi mooy uh-huh. fi mu jaar ci wàllu alquran yi jàng wax nga ñu ko nee nga ñu bàyyi mooy ko jàngal alquran waaye tàmbalil ko tafsir uh-huh. moom baayam it sëñ Bousso Pathé Dramé koy tafsiral mm-hmm. mu dikk tafsiraatul alaaji Omar mm-hmm. kon <laughs> ba tey barke ba day wàcc mm-hmm. baarakallah wàllu xam-xam ci wàllu bind ay téere ay tawaalif ak yu demee noonu maanaam bëgg nañoo xam lan la ci lan la ci réaliser lan la ci réaliser ak dëkk bi ñuy wax Daaru Salaam ndax bi fi way juróom di nekk la ko sanc wala ginnaaw bi way juróom génnee àdduna. ok jërëjëf. Mhm. xam naa comme li ngay wax ci alxuraan rek. tey jii moom yàlla ci barke mag ñi rek. Mhm. dem na ba mu yomb lool ci àddina. dëgg la waaye boo seetloo li mu wax ma ne téeméeri at ci gannaaw. Mhm. boobu ñu doon mokk alxuraan ñu néew. ñu néew la ab lim la yitt ji ngay def pour am fëy yi ngay bindi. yitt la waaw kon la. Eh, nga xam ne boobu loolu bu ñu koy wax mooy. maanaam moom dafa xool xam ne li mu war a fayee baayam. mooy moom moo ko jàngal ba mokk alxuraan mm-hmm. kon moom itam na bind kaamil sàngee ko baayam moo tax daan na wax ne sama baay fa mu tëdd ñaari kaamil la fa ne baayam kaamil la waaw càngaay li kaamil la léegi xam mbokkam mu ne ko itam <laughs> sa baay itam uh-huh. ki ko taxaw kaamil la la ilaha illallah maanaam ki jullee mamaale daaw kaamil la muy sidaaji man muy saydi saydi ko sàngee kaamil la ndeysaan waaye moom it kaamil la ndeysaan ñetti kaamil dañ lañ waxante yooyu barakallah comme bi ko baayam jàngalee loolu ba mook baayam ñaar fukki at ak ñeent lañ dund 1924. Hmm. la fi woy juróom bu góor jigéen bàyyi ko fekk moom 24 ans. barakallah léegi nag gannaaw bàyyam kilifa doon ñëpp dañ ko daan ñëwal. Hmm. ñëpp bëgg koy yennoo la. Hmm. mu xam ne lii bu ko yennoo jamono jiyee lim bëgg lim soxla si xam-xam. loolu da koy faat. da koy faat loolu moo tax mu laxas génn dëkk boobu di ndaama. dem jaamal. jaamal Cissé Maaruuf waaw. Cheikh El Hadj Abdoulaye Cissé borom jaamat. ndeysaan def na fa juróom-ñaar di jàng. radiyallahu taala an mhm. fa la jàngee lépp nag. Mhm. luy euh, mhm. ba 1929. 1929 waaw. 24 ba 29 29 mu def fa juróom bi jàng ma pare. gannaaw fii mu bayee ko muy ndaama bàyyam ma fi nekkoon. te baayam faatu na mhm. te baayam moomu toon si dëkk bi dara mhm. ndoxandeem la fi mhm. dëkk bi day dellu si loxol seen borom ndeysaan maamam mi jur yaayam génnoon na dëkk bi dem sañ ci dëkk boppam bu ñuy wax Ngambi Ngambi Ngambi bi ak Gambi déedéet Ngambi Ngambi eh, léegi kon moom sëy mi daa nga xam ne daanaka ndaa ma amatu fi dara ndax ma fàtt naa lay wax ne ne way juróom jigéen moo njëkk gaañu way juróom góor Hmm. ndax way juróom wu jigéen. Mhm. amul fanweeri at yàlla wàccee ko. ndeysaan ndeysaan. kon dëkk bii mu béyee koo tey. daanaka daf fi jeexal. ndeysaan ndax ki jur yaayam. Mhm. génn na fi ak njabootam dem sañ ci beneen dëkk. Mhm. baayam faatu na. te yaayam a ko njëkk a faatu. la ilaha illallah moo tax ba mu jàngee ca daara ja ba matal. dafa dem ñibbiyaat ngam bi. te dëkkam maamam bi nga xam ne maamam bi jur yaayam moo ko sañ kon ay nijaayam la fa fekk. maanaam suñu borom loolu li dikk ci sama xel. mooy suñu boroom gaayam yi uh-huh. su leen bëggee xàllal aw yoon uh-huh. da leen di tumuraankeel waaw alam yajidka yatiiman fa aawa wa wajadaka daallan fa hadaa <laughs> nga xam ne uh-huh. suñ borom kon bëgg koo xàllal aw yoon tax na dèjà daal dina indi tumuraanke waaw juróom wu jigéen faatu na waaw lu jiitu bay way juróom wu góor di dem waaw maamam sanc na dëkk way juróom wu góor faatu na it wallaay dèjà jeexal na ci dëkk bi moom daf daan wax ne bu la daan digal daf laay wax doxal doxal waaw. mu boo doxee njëkk ngay toog. Mm. soo toogee dootoo jóg. waaye soo toogee njëkk ngay dox. Mm. dese nga beneen jógin. la ilaha illallah. waaw mun moo tax mun la doxal. doxal boo doxee. Mm. saa yu toog jotee rek boo toogee waaw moo tax mu ne boo jógee njëkk ngay toog. Mm-hmm. soo toogee dootoo jóg. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon ma wax la loolu léegi wax jooju li koy firndeel mooy. Mm-hmm. bi mu béyee ko ci daara ji ñibbi ngam bi. Mm-hmm. ci ay nijaayam ne xam mm, mm, mm, indiwaale xam-xam bu rëy indiwaale sunna su mat sëkk ak njub gu mat sëkk te mu fekk si dëkk bi ñoo xam ne loolu dañ ko du mooyu maanaam ay sabarak ndaga yu demee noonu waaw day ndeysaan yooyu moo fa ne ndeysaan ñu ne si biddaa yoo xam ne lu doyo doy waar la yëf yi mooy yëf yu njëkk yi rek wallaay ndeysaan waaye yi xewoon rek am teen boo xam ne dañ koy feccal dañ koy tëggal mu may ñu ndox mooy alxuraan mii nga doon wax rek boo ko mokkale boo demee ci mpénc dañ lay géewal <laughs> ngay tari nga takk ay teqal ma di tari soo noppee ñu may la soxna wallaay wallaay boole kook ay may ay hidaaya yu hidaaya yu bari bari te bi muy ñëw foofu bi muy mm. bayee ko daara moom si daara ma ndax bi ñu ko commencé topp def ko yaakaar mm. moom mu ngi si daara jaamal la ko wax mm-hmm. taalibe ki njëkk ngëp si moom ñu ngi koy wax alaay sëriñ wuli Touré alxaaji Serigne Wuli Touré. waaw mooy taalibeem bi njëkk. mooy taalibeem bi njëkk nga xam ne ca daara ja. Mhm. la ko toppee. Mhm. def ko yaakaar. ndeysaan xam ne ni na tarbiya. baarakallah kooku moo sañ ci Medina Salaam gële ca Saloum ca côté mhm. Waku Ngona. ak Daaru Ridwaan gële ca Gàmbi. Daaru Ridwaan waaw. kooku ñun kooku mooy bu mag. mooy si dara ji ma. ndeysaan ca daara ja la ko bi sëriñ bii di ñibbi Gàmbi. sëñ ña ko doon gunge xelul ko bagage yi ca la bokk. ca la bokkoon. sëriñ bi ñibbi na fi benn neuf. ba mu ñëwee gis ne moom li mu bëgg a doxal ak li mu fekk ci dëkk bi du mm-hmm. benn mm-hmm. te ay nijaayam ñooy kilifa dëkk bi ñooy kilifa yi mu defar jàkki boppam ci biir këram hmm? yore daara bi jàngale mm-hmm. fa la njëkk commencé gàmmoo moom barakallah ci 1929 waaw ba la ñibbi waaye 1930 ci la commencé gàmmu boobu daara la yore ndeysaan xamul lal ci njaayaan lay toog bu gàmmu jotee. bu mhm. wut bëy rey. njaayaan mooy njoowaan. mooy njoowaan <laughs> voilà yooyu ci lay toog waaw loolu mooy waxin Saalum ndeysaan voilà njaayaan ndeysaan yooyu ci la <laughs> ñi muy jàngal <laughs> ñoom la daan ànd ci gàmmu gi foofu def na fa juróomi at hmm. ci dëkk boobu muy 1930 ba 35 waaw tabaarakallah bi bi juróomi at yi matee hmm. boobu yàlla mu ngi ko booleeg euh, benn xaritam boo xam ne wëllu yàlla bu mag hmm. ñu koy wax sëñ Baara Caam Serigne Baara Thiam. Serigne Baara Thiam. Mhm. ku doy waar gi noonu. Mm. ndeysaan. taalibeem Serigne Touba la. sëñ Baara Thiam sëñ Baara Thiam ca Louga. Mhm, ca Kër Baara waaw Kër Baara waaw. waaw Baara ah, laa jàpp na moom. waaw sëñ Baara laa waaw Baara Thiam ku doyoon waar la. Mhm, ba ni mu faatu mas sa wat bopp bi. ay gore. du dox jaar si yoon. ndeysaan. ci àll bi rek. sooy wax loolu dégg waaye lu mu xamul xamul. ci gars yi yàlla yi. doyoo doyoo waar. <laughs> doyoo waar <laughs> ndeysaan. kooku moo ñëw benn bis ne ko man dañ ma wax ne ma. Mhm. fii nga nekk. Mhm. du liggéeykaay bi. liggéeykaay bi mu ngi ci xarfu. xarfu waaw maanaam booba dëkk bi mu ne li ko faree xarfu. Mhm. sëriñ bi ne ko loolu wax nañ ma ko ba dem naa seeti ko daaw. dem na ba ci àll ba fi madinatul war dëkk bi mu njëkk sañ ci moo ngi tuddee madinatul munawar. madinatul munawar mu ngi ca côté Ndofane. bi xool àll bi madinatul munawar moo jiitu Daaru Salaam waaw. dafa mhm. bëgg wax dundam rek. Madinatu mhm. Munawwara boobu dafa dem xool àll bi 1923. Mhm. mu jagu ko. mu am ñu ko wax ci ay kilifa. ñu ne ko xàll boobu ñëpp ko fi bàyyi. jinn yi soxota ku fa jaan màtt du wér. ku fa bant jam. góomu hmm? ñëpp ko tegg suuf si baax na waaye kenn du ko dëkkee. seetal loolu. suuf soo ñuy tere. moom fa dem seet ko ne moom fii laa bëgg a dëkk. la la mu ne moom jinn du ko te dëkk. Mhm, ndeysaan waaw ah, parce que yàlla wax lépp li ya jinna mhm. wala insaana saa sulla min maa sayaatini mhm. yàlla moo ma notal jinn yi ak nit kopp bépp nit boo xam ne tooñkat nga yàlla notal na ma la saytaan yi yàlla moo ma leen notal loolu moo ko bind moo ko bind <laughs> baarakallah kon moom jinn du ko tere dëgg dëgg la bi mu xoolee àll bi mu jàggu ko mu mu mu def si listixaar ñu wan ko kaaba gi tabax ko foofu ci ci barab bi ci àll bi mu dox ba ci bunt bi mm-hmm. nekk ku fi nekk ñu ne ko Fatimatu bintu rasulullahi sallallahu alayhi mu ne dama ko bëgg gis ñu ne ko bàyyi ba suba mm-hmm. bi mu tawee mm-hmm. mu ne ah suba si listixaar de mooy déwén sa déwén sa la dem toj àll boobu 1924 la ko toj ma dina mën a wax keroog bi mu koy gor ànd ak taalibeem yi ak xaritam yi euh, sëñ Daara Moussa moom moo wax la boobu xalifa bi moo fa nekk uh-huh. sëñ Mod Bode sëñ Mod Bode mboolem taalibe bu mu am Baay Faal yi uh-huh. ñëpp la fa yebal baraka ñu ne si xàll bi di gor ndeysaan pël yi nga xam ne ñoo dëkkoon si tund boobu ak ñi fa dëkkoon nga xam ne dañu ragal xàll boobu mhm. ñëpp ngee si garab yi di yurndoo ndeysaan ba xam kii ba xam ñiy gor moom waaw voilà lu leen ne kenn du fa tudd yàlla <laughs> day leen di kéemaan la seen nga lu ma la ah dégg naa ba tisbaar jot eh? mu wax ñëpp nañ tëral bagage yi ñu julli ñu julli nijaayam ja ko ja ko dalaloon ca ngaam bi mm. la wax ne ko nijaay noddal mm-hmm. mu ne ko yow gën nga fii kenn du fi nodd kenn du fi liqaam nañ julli rek mu ne ko noddal maa la jox ndigal li fee lore du la lor bi ni jaam dalee bopp bi ni allahu akbar li may wax nag ñun suñu waajur daf ko fekkee sama waajur yàlla may a ko fan yu bëri ndeysaan moo ñuy waxal lépp ndeysaan bi mu noddee rek lañ seen ponkalam jinne muy ñaaraam ñaare mi jëm ci si mbooloo mi la ilaha illallah sëriñ bi wag loxo mbug bi rek mot su ko bi mu déggee lii la wëlbati ko da dem xam nga riit njabootam yëpp ñu ngi dégg riit xam naa ni waaw ñu ngi nii da dem waaw ndax du jinne moom ñëpp a koy waaw ñëpp koy gis <laughs> ñëpp a koy gis ñu ngi dégg nit ñuy dem <laughs> mu wax ni yaay ji noddal mu noddo ba pare ñu julli seulement dara xew te lu jiitu loolu mm. xam naa kilifa goo xam ne si tund woowu la dëkk di kilifa gu mag mm. demoon na seeti àll mm. di ko wër ba timis fekk ko fa mu ne na julli timis doogu ñibbi bi mu nuy kabar jàng bi muy rukkon su jóot la ko jiit fett mu xam la ilaha illallah ba wala fa ba waaye ñaar ñi ñoo bokkul ndax mhm. yàlla mhm. def si moom moo gën a kawe. dëgg la dëgg la dëkk boobu noonu la ko sañcee. 1934. Mhm. mu nekk fa fukki at ak ñett. nga xam ne jarablu na ko 1924. waaw mais ay 1934 ah, la fay def ah 1900 non euh, dem xool loolu si déwén sa la ah ca déwén sa la ko 1934 la mu nekk fa di jàngale yore daar nit ñi di ko fekk. fekk na li muy ne foofu yëpp fàttali naa la wax ne la moom ab tijaan la. moom waaw moom ci tariixa seex la nekk tariixa seex si la ne ndeysaan waaye nekk mu doy waar la barakallah maa ngi ci doon bëgg a dikk sax ci kan ci kan la war a jëlee kon nañ bàyyi ba nga ñëw gi maa gële madina gi mhm. na fa fukki at ak ñett ci madinatu munawwara waaw mhm. mhm. la lëggee téeram bi gën a mag ci téeram yi ñu koy tuddee ay yawaaqitul faraahidu ay yawaaqitul yawaaqitu ay yawaaqitul ay yawaaqitul faraahidu xam naa li nga wax ay waaxiitul faraid yow waxtu yi ah, farata yi ah, déedéet eh, eh, nu mu tuddati mhm. mooy jamono yàqoot wurus ah <laughs> ay waaxiitul faraid da dëgg la dëgg la damaa jàppandi sax téere bi day wax ci wax waxtu déedéet déedéet téere bi yàlla lay tàgg mhm. xam naa yàquut waaw las ma wus ne la ko ràbbee mhm. las lasmaul husna juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent asmaul husna moom la def si si si téere bi baarakallah foofu la ko ñëw def na ko junney wéy mhm. ak juróom benn téeméer ak ñeent fukki wéy ak ñaar mhm. foofu la ko wéyee mhm. ci bu mujj foofu loolu leen bu mujj ci la bindee téere boobu baarakallah eh, baarakallah ak yeneen téere baarakallah boo ñëwee si téere yi dinañ si wax insha allah kon moom foofu la ñëw ba eh, hmm. mu ngi Medina Ndewen ba muy madinatul munawwara moom la ñuy wax madina ndaween moom fukki at ak ñett la fa am baarakallah am na solo lool mm. mbokk yi ñi ngi fàttali ni yéen ngi topp seen télé réew mi TV mm. euh, muy euh, émission keppaaru mag ñi ngeen di ko am dimanche bu jot di ci ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke mm. muy amee fii ci Sodida imaamul alhaaji Mouhamadou Lamine Baara fadilu yal na yàlla dolli ko leer te dolli ko ngërëm waaye tey ñuy waxtaanee wàllu yàlla alxaaji omar ndaw mm-hmm. borom daaru salaam mm-hmm. borom madinatu ndaween mooy mm-hmm. madinatul munawara baarakallaa di ci ànd ak kenn ci ak ay sëtam ñu koy wax sëriñ Cheikh Tidiane Ndiaye moo jur sa wayjur wu jigéen yaakaar naa moo jur sa wayjur wu jigéen de ndeysaan baarakallaa euh, ngir lan ñu ñuy fàttaliku jaar jaaram ak liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal yàlla xam nañ ne alxaaji omar ndaw euh, kon jàngi na Jaamar Cissé sëñ mm. Jaamar Cissé moo ko jàngal xam-xam ginnaaw bi ko bàyyim jàngale alxuraan tafsiral ko ko mm, mm. waaye moom sëñ Jaamar Cissé moo ko jàngal xam-xam mu ñibbi ci kër ay nijaayam ngaam bi euh, waaye def fa juróomi at sanc dëkku boppam maanaam nga xam ne kon moom ci fanweeri atam ak ñeent ci la sanc dëkku boppam mm-hmm. waaye fanweeri atam ak juróom mm-hmm. ci la taalif téere wallaay wallaay wallaay wallaay loolu lu jiitu loolu sax ndax ba may ne si daara jaamal njëkk wëy foofu lu ko njëkk boobu 27 ans la am. boobu 27 ans la am. di jël ab téere di mhm. tagg yonent bi sallallahu alayhi salaatu wa salaam alayhi boobu mu ngi ci daara ja. baarakallah ah, baarakallah <laughs> foofu li ma fi bëgg a préciser mooy. Mhm. maanaam da ngay gis jamono ak fi mu toll. Mhm. da ngay gis ko am cinquante ans naan ñun jeunes yi. <laughs> voilà ko ko du def dara. kan mooy jeune. <laughs> léegi te mag ñi. yitte jiñ amoon. ndax boo xoolee ñun ñi ñëpp daanaka ëppal nañ 34 ans. wallaay wallaay wallaay ñun luñ fi defagun. ndax sanc nañ fi dëkk ndax taalif nañ fi téere looloo tax waxtaani mag ñi am solo mooy dala yokk jom mhm. Mhm. ndax fii kat Sénégal ñun li fi xam li ñu fi xam mhm. da ngay gis ko am cinquante ans boo ko joxee micro mu ne ñun jeunes yi ana jeunes yi. wax nga dëgg yow léegi ci bàyyi nga bokk. ci bàyyi nga bokk waaw. <laughs> que c'est parce que mag ñi suñu mag ñi ñoom suñu maam yi. Ah, ay à l'âge de vingt ans. xoolal xoolal Cheikh a Niass. wallaay wallaay xoolal yi nga xam ne ci la taarif téere ci la sañ ci ci dëkk. wallaay ndeysaan ay ay dix ans vingt ans lañ lay wax. wallaay wallaay Cheikh Ibrahima Niass tey buñ koy waxtaanee ci réew mi. Mhm. da ngay jàpp ni ci mag ñi magoon ñoom maam Sëñ Tuubaa la bokk. wallaay te moo ne 1900 la. waaw benn at la magee Alhaji Omar Ndao. wallaay ndeysaan wallaay. tax. waxtaani mag ñi loolu mooy njëriñ li mooy tane ab soññee la ci ñun. Mm, waaw ndax Alhaji Omar Ndao mii. à de 30 ans. à l'âge de 32 ans 33 mm. ans. Mm. ñu ne gor na dëkk boo xam ne ñëpp dañ ko fa bàyyi woon. wallaay. ñu teg ci ay at mu goraat beneen. wallaay boole ko taalif ay téere nga xam ne ni ma déggee ak dundam. Mm-hmm. daanaka se maanaam. 40 ans. Mmh. bi muy dund 40 ans. Mmh. fekk na réalisé na loo xam ne fees na dund doomu aadama waaw ndax liñ jot a dégg ci ay jaar-jaaram. Mmh. ci lu matul 40 ans. ak lim fi réalisé car macha allah. yàlla yàlla fay ko ko. loolu rek ab soññee la ci képp koo xam ne dañ na la ci njabootam nga bokk. kon. mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne mm. waxtaani mag ñi loolu mooy njëriñ li mooy kane mm. mm. ñu tiiree ci ay leçons leçons yi mooy kane alhaaji Omar Ndaw mii ñuy waxtaani bi muy am 34 ans 35 ans ci la gor ab dëkk ci la taalif ay téere ci la waaye nag wird wi nga xam ne mooy euh, tariqa seex bëggoon naa ñu dikk ci yan at mm-hmm. la ko jël mm-hmm. ak kan moo ko ijaazaal mhm. ak ñan ñoo doonoon ay muqaddamam insha allahu taala jërëjëf su ko defee ñu door a dikk nag ci dëkk bi nga xam ne mooy Daaru Salaam Daween ak it nag mhm. maa ngi dégg ci ci ñu am maa ngi dégg ci ñuy nettali mhm. kéemaan gu rëy gi mu defoon ci féeri bu bi bii Mercedes am bi mu jaarale woon ci kaw ndox mi <laughs> loolu moom bu soobee yàlla danañ dikk ci xarbaax yi insha allah doomam la <laughs> moo njëkk nekk ah doomam sëñ ah du alaaji Omar mais laa ilaha illa allah barakallah moo la tijaan la boo xam ne itam. Euh, niñ ko indilee tarixa bi. Mm-hmm. sëtub Cheikh Omar Fouti Taal. boo xam ne sëtu doomu mbokk la. sëtu doomi mbokk. waaw. Mm-hmm. maanaam magi Cheikh Omar Fouti mooy maam mooy maamam. mooy maamam. Mm-hmm. mu tudd Ahmad Saint Taal. Ahmad Saint Taal mu nga bàyyeekoon Mali. Mali ca xalifab Cheikh Omar. Amadou Seyxu. Ahmadou Seykho. Mm-hmm, mm-hmm. Ahmad Seykho mii ma lay wax ne moo indil tariixa bi Seydi El Hadji Malick Ndao. Mm-hmm. Ahmadou Seykho lañ ko tuddee. Ahmadou Seykho ko jàngal moo ko yar. moo ko jox tariixa bi. moo ko jox lépp. ba pare ebal ko Sénégal. baarakallah ñëw na Sénégal ay yoon yu wuute. yoo xam ne gisee wut ak bàyyi Seydi El Hadji Malick Ndao muy Mame Khady Daaw. waaye yoonam wu mujj. bi bu ñëwaan Kaolack laay dem ci Mame Abdoulaye Niass. bu fa béyee koo dem Tivaouane si maamu Alaaji Malick mm-hmm. su fa béyee koo dem Njaay Gonda si mm-hmm. cornaal yu dem mm-hmm. xat moom nag bi mu béyee ko foofu xaddiya yi ñu ko jox daf si jënd naaru góor fas war ko fu mu jëm moom lay yóbbu ndeysaan mais ci at yu léegi mu ñu ne ko nag am na dëkk bu nekk fële ca côté Kaymoor ñu koy wax Kabakoto say mbokki tukulóor ñoo fa ne demal nga seeti leen war fas dem fa bi mu fa demee def fa ay fan mu laaj ne seen tund wi. kan moo fi dàq alxuraan. ñu ne ko góor gu ñuy wax xal yu daaw a ndaw. mu ne fu dëkk ñu ne ko ndaama mu ne yóbbu leen ma fa ma seeti ko. bi mu ñëwee. mu gisee maam Ali. ci benn bis bi. waxtaan ak moom. ñu tëju waxtaan mu ne ko dama bëgg a jox tariqa tijaan maam Ali nangu. baarakallah. te boobu si daañu ma ne mu ngi nekk ndaw. nekk ci àll bi di sàmm bu bëccëg mu ñëw ci kër gi. góor gi benn yoon la ko gis mu ngi nekk ndaw. amagul fukki at ak juróom. góor gi xool ko. Mm-hmm. wax bàyyi wax wax maam Ali daaw ne ko danaa la may ñaari muqadam. Mm-hmm. ñaari muqadam yi ma lay may may ko sa ñaari doom seet sa ñaari doom yoo ko may. bu ko mm-hmm. dem dem si laaj ndaw bi mu sàmmee ba ngoon mu ñëw. maam xaali woo ko wax ko li xew gannaawam. may ko mu tarixa bi. jox ko muqadam. léegi tukuloo bi dafa ñibbi aan Mali. bi sëñ bi dundeek baayam ba baayam faatu. ba mu dem mm. jaamal. tukulóor mm. bi ñib si aat ñëwaat Sénégal. Mm. muy Ahmed Sakhid Tall waaw bi eh, di wër. ba àgg ba nekk dëkk bu ñuy wax naawel. naawel waaw xam naa ko xam nga naawel maaruf. bayeekoo fa nag benn bis ñëw mbirkilaan sëriñ bi it bayeekoo ci daara ji ñëw mbirkilaan biñ tasee ci marché ba mu xam ni sëriñ bi. ne ko doo doomi xal yu daaw nag mu ne ko ah kay mu ne ko gisoon naa la benn yoon. Mm-hmm. boobu mu ngi nekk ndaw mm-hmm. mu ne ko foo nekk léegi mu ne ko maa ngi jaabal mu ne ko nag ma wuyu si man maa ngi naaweel sëriñ bi jàng ban ba ba semaine bi jeex bisu mm-hmm. alxames mu oo benn koo xam ne mbokkam taalibeem la ci daara ji ñu koy wax góor gi Malick Dieng gi Malick mu nga dëkk dëkk bu ñuy wax Maabo ñu xam ne ñoom ñaa dem mu seeti tukulóor bi mu dem seeti Ahmad Saxay Taal Ahmad Taal barakallah bi mu ñëwee mu ko sa bàyyi maa ko joxoon tariix bi dama ko tënkoon si ña muqadam yow na tey dama lay tinki naa la tarixa bi mhm. lépp lu ci daganoon Seexu Tijaan daganal nañ la ko nga xam ne ka joxoon baayam tarixa bi moo ko li joxaat ko ne ko nag man aw ma <laughs> doom maa ngi mhm. yu teg góor góor dund ñibbi Mali maay sa baay léegi sëriñ bi bi mu ñibbee mhm. keroog la ko defalaat beneen muqadam tënki ko jox ko askaaru tarixa bi jox ko askaaru xaas yi ba pare sa ko silsilatu suufiya silsilatu suufi baarakallah voilà <laughs> nga xam ne eh, mbir mu doy doy waar baarakallah ko jox ndax maay sa bàyyi dootuma ma ñibbi ndax man mm. du mu am doom ndeysaan góor gi si daaj ma ko fa mm. jaamal dem ñibbi góor gi béyee koo moom dem dëkki caare eh, caare caare ngam bi deux kilomètres maa nga xam ne ba gisee mm. ndeysaan ba ba yàlla dogal mu war a faatu mu oolu sëñ bi mu ñëw mu ne ko sama yaram neexatut te yaay sama doom jëlal sama téere yi ak sama bagage yi soo déggee ñu ne neexatum fi nga ñëw topp topp góor góor ñu ngi ko rob caare ci armée waaw dañ ko daan defal foofu sax siyaare bu mag ndeysaan moom Ahmed Sany Tall moom Ahmed Sany Tall moom barakallah kooku mooy mm, mm. bàyyi si daaj ma ndaw si tarixa bi barakallah moo ko jox lépp loolu leer na léegi nag tarixa boobu mm-hmm. daf ko liggéey mm-hmm. ba toll si foo xam ne ma mm-hmm. mosuma dégg si tarixa bi moo xam téere ku bind moo xam nit a toog di ma wax lam ci wax ma mosuma dégg ko ko wax ndeysaan bi mu liggéey tarixa bi daf ci àgg foo xam ne nee na ku mu jox tariixa bi. Mm-hmm. ñu xàmmee la ak ku ko Seexu Tijaan jox. Mm-hmm. ci yow la waaye du ci moom. loolu de garantie la. de garantie la loolu garantie la. bu dee ku mu jox tariixa bi. <laughs> ci buntu jàkkam ji. Mm-hmm. nga dugg ci biir jàkk ji fekk fa Seexu Tijaan. ne ko yeesalal ma du ko yeesal. ndeysaan la ilaha loolu lu wér la voilà xam ne kon <laughs> foofu la ci tolloon moom loolu garanti la baarakallah loolu waaye baarakallah lim doon moom romb na sax nekk xalifa Cheikh Tidiane loolu garanti la ci ñëw insha allah loolu garanti la waaw kon yaakaar naa baarakallah loolu am na solo lool loolu am na solo lool kon liñ bëggoon a xam mooy que ni mm. moom alhaaji Omar Ndaw mm. maanaam kan moo ko jox tariixal Cheikh mm. leer na ne Ahmad Saïd Tall moo ko ko moo ko joxoon way juróom waaw jamono di dox bi way juróom génni àdduna mm, mm. mu jóge jaamal mm. daje ak Ahmad Saïd ci dëkk bu ñuy wax mbir kilaan waaye fekk euh, góor gi it moom mi ngi woon naawel naawel ak mbir kilaan yaakaar naa six kilomètres yaakaar naa six kilomètres la <laughs> dama fay dem daanaka at mu jot ma dem fa siyaare armeel yi yi foofu yaakaar naa ay six kilomètres lay war a doon xaw ma cinq daal soriwu ko mais maanaam li ci am solo te am solo mooy kan yi maanaam tariqa maanaam ci yoon yi ñu ko mën a joxee mooy que ne dafa war a am silsila bu wér bu leer bu wér mooy seexu tiijaan moo jox diw diw jox diw diw jox diw waaye dafa mel ni alxaaji omar ci ni mu ko amee mooy que ni ci Ahmad Saïd mooy Cheikhou Tidiane. Mhm. moo jox Modou Khali. Mhm. mu jox Cheikh Oumar Foutiye. Mhm. mu jox Ahmad Saïd Tall. waaw mu jox Amadou ah, Cheikhou. moom mu jox mu jox Cheikh Oumar. mu jox Amadou Cheikhou. mu jox Ahmad Saïd. mu jox Alhaji Omar <laughs> baarakallah baarakallah loolu lu yar la ñu dikki ci nag euh, euh, daaru dëkk bi ñuy wax Daaru Salaam. waaw kay moom ci man at la ko sànci. Daaru Salaam mu ngi ko gor. ñan ñooy ay muqaddam Seydina Omar mu ngi ko gor 1940 nga xam ne ci ñeent fukki atam ak juróom-benn. Mm-hmm. ci la gor dëkk mm-hmm. ba. boo fa rombee da nga xam ne lii dëkk la gor nañ ko ba pare. barakallah avant mu koy gor nag ci la wéy téere bii ma la doon wax mu yawaaqit falaayir fi las mi fi nas mi las maa mm-hmm. dafa xam la ko yàlla jox maanaam. yàlla dafa dindi kumpam xam-xam ci tur yooyu. leer ya ne. may ya ne. dañ ko ko hubbil Mm-hmm. nee bi mu amee trente neuf ans yu teg tuuti. Mm-hmm. amagul quarante ans. Mm-hmm. ci la toog benn ajjuma rek. yëf yi ñëwal ko. xam ne fatul akbar dañuy wax ne ñeenti ñii rek ñoo koy am. da ngay nekk nabiyu mursal. wala nga nekk nabiyu. wala nga nekk malaaka muqarab. wala nga nekk maftu waal yi. wallaay ndeysaan. ñii ñooy am fatul akbar. ndeysaan wallaay ndeysaan ne wax tax futuuxan. kabiiran. rabbi muntaxalan. bi habdikal hibbi. yaa fataahu ya allah la ilaha illa allah yow miy joxe fanul akbar karil baamul ba waaw ah, daf ne waftax waftax futooxan mhm. kabiiran mhm. rabbi muntaqalan rabbi muntaqalan li habdikal hibbi wallaay ndeysaan jox ma fatu kabiir mhm. waaye na nekk muntaqal na nekk fatu buñ tànn wallaay ndeysaan buñ sekk bu set wallaay ndeysaan nga xam ne yàlla rek rek rek laay xam du rax dara boobu la ko yàlla jox xam-xam boobu le moom la def si téere bi leer di sotte ko si kawam mu naan afit xale naa. Mhm. ayaa quddus. Mhm. dégg nga leer a tax mu naan quddus. ayaa quddus. mun faridan. Mhm. safaa asirrin. wa nuurin. rabbi yàlla. rabbi yàlla barakallah. afit xale naa. bëbbal ci suñ kaw. safa afid alayna barakallah kon lan la ñuy taw ci sa kaw. mu ne safaa a eh, lay ndeysaan lay maanaam selli selliti sirru yi voilà selliti secret yi secret yi mhm. loolu la yàlla doon taw si kawam mhm. mu génne si téere bii barakallah muy bi barakallah mhm. kon ci at moom bi mu ko bindee nag la dem gor dëkk bële barakallah bi nekkee Medina ba fukki at yi ak ñett mat dafa ne fii dañ doon ma liggéeykaay la mat na ñu ma naa dem sa noppalookaay ba muy daaru salaam muy daaru salaam. <laughs> wallaay ndeysaan foofu fanweeri at la ko def góor yàlla yee ko ñëw dégg. waaw <laughs> daaru salaam uh-huh. Uh-huh. fa dund. fanweeri la fa def ndax dañ ko gor 46. Uh-huh. dëkk fa 47. 1947 ndeysaan 47. léegi nag këram gii mu amul Medina mu xaaj ko. yóbbu fële ñaari soxnaam ba fii ñaari soxna. Mm. ba 1948 mu yóbbu ñëpp fële. 48 waaw mu ne ndax dëkk bii mu nekkoon di Madinatu Munawwar mm-hmm. dëkkub secret la ci moom mm-hmm. Mm-hmm. keroog ba mu koy génne daf ne yéefar du fi dëkk ab yéefar du fi dëkk déedéet loolu moom ñu xam ne si daal ndax gis nañ ko fa demoon ñu jàpp ko surga te ki ko jàpp bi mu koy jàpp boobu kooku nekkagul ci diina waaw ndeysaan mu ne ci dëkk bi waaye deful fa weer de weer deful ko fa tuub fi ne mooy nodd ci jàkk ña baarakallah mu ne yéefar du fi dëkk yéefar baarakallah mu la koy fekk àdduna buy tukki. waaw fi lay fekk dëkk bi du waaw du tas. baarakallah mooy du gent bu. du gent. <laughs> baarakallah fi mu jëm eh. ba mu dëkk daf ne. Mm-hmm. fii ma toll fi mu ne. xalifa rasulullahi la. Mm-hmm. alayhi mu ne xam naa juróom fukki at. Mm-hmm. yoo xam ne sama bët bi du tegee ko ci rasulullahi. c'est du ma gàgg ci alquran. du ma runge du ma laay buur du ma sàdd jam-jam. léegi loolu daf ko bindi. daf ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko. xemaadu mm-hmm. kullu xamalin wa siqi. Mm-hmm. mahabadu muxtaar ñu ne waaw mu ne mm-hmm. xayrul xalaqi. xemaadu kullu xamalin wa siqi. baarakallah ñu ne ko léegi ku bëgg yonent bi naa ñu ko xamee mu ne wa min xalaamati mahabati nabi. shawqun ila liqaa'i muhabbibi. ndax is kullu waamiqin yuhibu iltiqaa mahibbihi mukasirin tamuluqaa. baarakallah lii nag moo tax man rasaqana allahu mulaqaatu nabi. Ah, yàlla moom wërsëgale may daje may daje moom bi juudi yi wa fadli yi mustawi bi mm. waaye daje gi ni mu amee mu ne fi kulli laxsatin fi kulli laxsatin min al laxsaati mm, ja barakallah wa kullu xaalatin min al xaalaati maanaam étape boo jàpp ne rek xat na man danaa man danaa faa gisee gin ko xippi fi kulli laxsatin bu ne laxsa bu ne wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wax loolu wallaay ndeysaan mu ne am naa juróom fukki at du ma gàtt ci alquran baarakallah du ma rungi mhm. du ma laayam booye mhm. du ma sàdd jam-jam mhm. sama bët bi du tàggi ko ci rasulullah alayhi salaatu wasalaam mu ne dëkk bii di daaru rusuma ko fi dee wallaay ndeysaan waaye rus naa ko fi dee dem safar loolu daf ko gaaraan tt rusuma ko fi dee waaw waaye rus naa ko fi dee dem safar baarakallah foofu mooy Daaru Salaam def na fa fanweeri at. kon Daaru Salaam fu mu placé wu. Daaru Salaam moom Nioro. département Nioro 4 kilomètres la. moom département bu Nioro 4 kilomètres la da ngay dem ba Nioro doxaat 4 kilomètres. waaw kon moo ci wetu Porokhane gi. wala la. baraka waaw 12 euh, kilomètres la. 12 kilomètres ndax Daaru Salaam ak Nioro 4 la. Mhm. Porokhane ak Nioro xel mu la. baarakallah Daaru Salaam am na fanweeri mhm. bi mu fa sancee. Mhm. ba 1949 la dem aji màkk. Mm. dem na màkk. moo indi alxaaji ji. waaw moo indi alxaaji dem na mhm, màkk 1949. Mhm. bi dem bota bota bota bi ko yóbbu. Mhm. moo suñ maam Abdou Aziz Dabaax ñoo bokkoon. moom maam Abdou. ñoo sa Thiès. waaw waaw waaw ndeysaan ak sunu wajur wala sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. sëriñ Cheikh Gaynde Fatma nga lu ma la wax. kon moom aji na. baarakallah eh, na. nekk daaru sax ba 1958. ci la njëkk rëdd jumaa. 1958 ñu ngi ko rëdd moom la rëdd jumaay waaw te téere bi maay wax ba mu nekkee Medina la laajoon yàlla juma foofu la doon ko wasiya masajida waxuma jenn sax ay masajid masajid jama yoo xam ne tux taaru la daa sama din mm. jàkk yoo xam ne dañ koy tànn ci yàlla na yii yu baax la mm. wa habdil wuddi yonent bi daf koy tànn barakallah maanaam bi mu amee 46 ans lan la yàlla ay jàkk mm-hmm. cinquante euh, cinquante huit ans ki la doog rëdd jumaa ci lay doog rëdd jumaa ndeysaan ba 62 mu daloo ko mm-hmm. bi mu demee ba soixante dix. Mm. dëkk bii mu béyekoon di Medina. Mm-hmm. mu ñëw rek daal fi jumaa. Ah, Medina kon Daaru waaw 60 xam ne jumaay Daaru Salaam moom ak jumaay Medina waaw moom ak jumaay Medina. baarakallah 70 la ko rëdd. 71 ñu daloo ko. 77 mm-hmm. yàlla wàccee ko. loolu mooy dundam kon soo su ma la ko doon résumé dama naan Seydi El Hadji Omar Ndao 1901 mm-hmm. la judd 1901 mm-hmm. ba 10 si la jàng alxuraan mokkal ko 1910 mm-hmm. ba ba ba 1924 ci la dund ak baayam mu tafsiral ko jàngal ko lenn si xam-xam ci la bindi kaamil ci la jiite baayam bi faatoo rok ko génn ci dëkk ba dem jaamal def fa juróomi at kon 1929 la béyee ko jaamal dem Gàmbi ci dëkk maamam boo xam ne moo jur yaayam ay di yaayam noo fekk def fa juróomi at Mm-hmm. di jàngale di jàng mm-hmm. bàyyeekoo fa mm-hmm. ñëw mbëri di nawet uh-huh. am fa fukki at ak ñett bind fa ay téere fa la jotee fadul akbar ba 1947 mu bàyyee ko fa ñëw daaru salaam am fa fanweeri at uh-huh. dundam jeex uh-huh. mooy juróom-ñaar fukki at juróom-ñaar talxiis bi dafa am solo baarakallah maanaam ni nga ko talxiisee maanaam mulaqasul qawl liñ soxla woon ci wax ji daa mel ne da nga ko résumé léegi ci ñaari ñaari mbir yi <laughs> dëgg la mooy que Alhaji Omar Ndaw miñ doon waxtaanee. li ëpp solo ci ak dundam. mooy 77 ans yi mu dund muy juróom-ñaar fukki at yeeg juróom-ñaar. génn ci ndigalul borom bi tabaaraka wa taala ndax jàng alxuraan la fi def jàng mokkal ko. tafsir ko. bind ko. waaye jàngale xam-xam. Mm-hmm. waaye taalif ay téere. Mm-hmm. mottali farataam yi mhm. muy aji ji màkka dikk defaral yàlla am néeg ci daaru salaam waaye defaral yàlla it am néeg <laughs> ci madinatul munawwara maanaam mu laqasul xawlu bi mhm. andi nga ko mooy que ne mhm. diggante 1901 ba 1917 mboolem lu mu fi def rek ndigalu suñu borom tabaraka wa taala moom fi mu fi mu tegoon tànkam mooy fi li suñu borom digle mooy te jaaree woon ko ci tariqatu cheikh abul abbas cheikh ahmad tidiane radiallahu anhu taala anhu wa rafana bi barakatihi kon li am solo te am solo mooy liñ soxla woon ci wax ji mooy que ne mm. bëggoon a xam kan mooy alhaaji omar daw mm-hmm. mooy résumeel nga ñu ko ci ñaari minute mm. xam naa li ñu desee ci waxtu daa mel ne bëreetul daa mel ne xam naa ay juróomi minute ci lay war a toll wala du ko ëpp xam naa ñu dikk ci mm. bi moom alhaaji omar daw 1977 la fi jógee mm-hmm. ñan ñooy ñi ko wuutu ak xalifa cheikh mouhamadul muntaka moomu ci kéemaan gu rëy gii nga xam ne moom la defoon ci géej gi <laughs> ndax fi mu ne bu dee ci ñun bu dee ci Sénégal mhm. jàkkay ndox moom mhm. miin nañ ko fi wallaay boo ne jàkkay ndox ñu ne Cheikh Ahmad Bamba moo fi njëkk a julli ci gii te boobaak léegi déggaatuñ ko waaye it nag mhm. jël ab oto jaarale ko ci ndoxit ah. wax dëgg yàlla bari wuñ lañ koy dégg <laughs> wax dëgg yàlla waaw ah, xam nga ah. xam nga ku demee si daaji ma ndaw euh, boo xamee insha allah tey émission bi ñuy def dina tax nga di nga gën a découvrir kan mooy si daaji ma ndaw ndax xalifa la woon mm-hmm. ci xalifay rasulillahi sallallahu alayhi wa moo wax ne yàlla lim na ma min ifraadi ummati min afraadi ummati mm-hmm. wa xoddani rabbi min afraadi mm-hmm. xam ne xeetu yu ndi yàlla yi famille bi waaw <laughs> ñooñu nag ma ci lim boole ma ci ñi nga xam ne dañuy jot xilaafatul kubra dañu wóotu rasulullahi sallallahu moo tax li ngay wax ni lim fi def yëpp déglu bi la daf noonu wa kullu ma kaana loolu yàlla la ko wax mm-hmm. maam wóoran li safwati yi yasiru li xaw li lépp loolu digal rasulullahi rek jox ma ko mm, wallaay ndeysaan kon moom loolu rek la mën a def wallaay loolu rek a mën a def nag ci maqaama mm-hmm. maqaama yi mu yore woon mm-hmm. boo liirul téere boobu tey da nga xam ne kii bu amee doom ji ñuy wax Seydi Muntaxa nga xam ne moo njëkk Muhammadul Muntaxa alayhi salaatu wa salaam waaw fukki doomi góor la am Mm-hmm. ñëpp rasulullahi la leen tuddee. alayhi salaatu wa salaam. doomi jigéen yi am mm-hmm. ñëpp rasulullahi. ah. sëtam yi ñëpp rasulullahi. góor a jigéen nag. loolu day kéemaat dëgg maanaam boo duggee kër si daaji man ndaw. fukki doomi góor yi am Moustapha la. Mm-hmm. Mansour. Muntaxa. Bachir. Habib. Mursala. Taaha. Taahiru. Makkiyu. la ilaha illallah. ñi ñoo fa si jigéen ñi taawam Fatimatu la. ki ci topp mooy sama waajur xadijatu la roqiyatu sukaynatu umaamatu ummu kalsum sawdatu saydatu ñi ñëpp rasulullah daan na wax ne bu ko yàlla mayaan takk ndeer mhm. ni muy gësee rasulullah day yokk ba mu fàtte baayam fàtte yaayam ceetetetet mooy moom la géyal na rasulullahi waaye lu mu amit delloo moom la ko wane cofeelam ci moom ndeysaan ndeysaan sëtëb yi noonu loolu day wane cofeel cofeelam ci moom ndeysaan léegi nag Seydi Muntaxa moomu mhm. moo njëkk nekk xalifam ndax magam yële yàlla dafa dogal dañ gaañu njëkk sëriñ bi di wàcc 1977 mhm, mhm. euh, ba 2004 2004 la ko yàlla wàccee 77 ba 2004 2004 moo nekk xalifaam yaakaar naa suma juumut 27 ans jëm 28 ans la nekk xalifaam kooku nag daf doon nit koo xam ne ñun ñi nga xam ne nekkoon nañ ay ndaw nekk ci ronom dëkk moom benn dëkk xam ko biñ déggee loolu. Mm-hmm. biñ déggee loolu euh, mm-hmm. mbiram géej gi. Mm-hmm. yéemuñ ñu. ndax. ni meloon. maanaam su bëggee jàll ndox lu ko téye ñun xam nañ loolu. dëgg la maanaam dafa jubóo woon ak boromam. wallaay ndeysaan. ñàkk caaxaan. jeex takk ci yàlla. xamul benn mbóosóor. mooy Seydi Mountakha. ndeysaan 1938. la a jamono. bàyyi ko jàngal yar ko waaw baarakalla def ci moom sañ-sañ daan na wax na sëñ Muntaxa borom sañ-sañ la mhm. ki fa nekk nii muy Seydil Basir yàlla na fa yàgg mhm. mu a yàlla tànkam lu ko yàlla tànkam lu ko waaw bu fëggee ñëw bëri moom doomi Alhaji Omar la waaw ndeysaan yàlla yàlla yokk ay fanam waaw mu ne kële nag mhm. borom sañ-sañ la borom sañ-sañ kay bu ñëwee day jàll wallaay ndeysaan maanaam tey li ko <laughs> yàlla may mooy eh. bi bàyyam faatoo da daan eh. wër taalibe yi eh. fu nekk mu dem fa di di di di seeti taalibe yi di di saafante ak ñoom. Mm-hmm. ba bay wër nag ba àgg Gàmbi. Mm-hmm. ci tullu mu ñuy a Njaamina. Njaamina Njaamina. Mm-hmm. bayee koo fa dem Ziguinchor. ba war a ñib si. jaaraat ci àll boobu Njaamina. ba war a ñëw na jël. féeri bi féeri bi. mu fekk fa ñoo xam ne. xam nga am na ñoo xam ne boo ne kii diw doomi diw rek. bu fekkee sëriñ nga rek day daal ñoo xam ne <laughs> mënuñu seere sëriñ. loolu am nañ ñu ñëwee ñu ko fii tëj nañ féeri bi. borom réew bi si jamono jooju. Mhm. jawara mu mhm. ñëwoon sax du jàll. loo xam nga waxi ngelaw la. Mhm. maam ñu ngi koy wan ne ko yow jàll. dëgg la te boobu itam moom mooy jàll. pas-pasam mooy jàll tey. mu dégg ajuma gi damay fanaani daaru salaam. ba séddee ajuma damay jiiti ci juma. dégg naa loolu loolu mooy pas-pasam. <laughs> te moom xam ne ne fi mu toll si yàlla. féer yi kese. buur moo ko mën a jàllale wallay wallay ndax duggoon ak boromam. wallay ndeysaan. rek mu laaj sat la gi. dégg naa yeesal njàpp waaw góor waay def ñaari rakk. Mhm. te man seede naa mu dawal xam nga buñ ne dawal na oto dañ laaj ndax mënoon naay dawal. ndax mënoon naa dawal waaw man gis dawal mu ne man transport en commun laa amee. waaw. dafa jàng oto ba man ko. baarakallah tax bi mu waxee chauffeur bi ne ko dawalal oto bi si ndox mi. Mhm. sofër bi dafa tiit. mu hésité mu mën a amee. <laughs> mu laaj seetala moom yeesal njàpp rek waaw nañ fanaan ba suba mu ne ko déedéet. Mhm. bi mu defee ñaar raak rek ñëw dugg si oto bi. waaw naan yéeg leen. ndeysaan ñëw yéeg. mu daal di taal rek moom daal liñ dégg mu wax. Mhm. mooy bisimilahi. Mhm. dégg nañ baatu bisimilah rahmaani baarakallah rek mu sóobu si géej gi. Mm-hmm, mm-hmm. pënd ba topp ko. baarakallah xam naa li duuf ci nag wi daa xëjandawul ci cin bi. <laughs> dëgg la dañ doon sóor li suur góor yi. dellu si waat beneen yoon daal di sóoraat. incha allah <laughs> incha xam naa daa mel ni signalé nañ ne ma benn minute ñu dese bu yàgg. <laughs> booba ak léegi ëpp na ñaari minute. xam naa daa fekk ni bëgguma woon a dagg. xissa bi ndax solo sim am. baarakallah ngir wane gaa yi yàlla yi. waaye xam naa sëñ Cheikh Tidiane ñu lay sant a baax ci mm. jàppandal gi ñu waaye tasaari xam-xam waaye xam le gaa yu baax yi ñu waxtaan ci ak yow nga jàppanal ñu ko wax dëggal déplacement ñëw ngir ànd ak ñun hmm. jotaay bi ñoom la ciy sant bu baax te di la ci gërëm tey ñaan tànk yi ñëw yeeg tànk yi na suñu borom def ko yiw euh, xam naa dañ lay jox nga tàggoo ci benn minute rek sama <laughs> réalisateur maa daal di rek lañ def baarakallah la baarakallah kër gi yàlla barkeel ko jërëjëf jërëjëf jotaay yi yàlla saxal ko jërëjëf jërëjëf xam ne kontaan nañ taalibe si ndaw yëpp yëpp jabar gi yëpp bëgg nañ baarakallah ndax ñun lii dinañ koy bëgg lu bëri baarakallah ku ñu ko jàpp ne daal hmm. ah ko bëgg nañ ci moom incha allah dañ def eh, télé bi muy suñu télé incha allah ndax itam lii ku la koy defal baarakallah bëgg na sa mbir gën a yëkkati baarakallah ñu leen sant leen gën wasalaam jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah imam Malick Guèye moom moo nekkoon ci Euh, jàppandal gi euh, alaaji Amady Ñaam moom moo nekkoon ci coordonné émission bi mm-hmm. ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi rek ñu ngi liñ sant lépp ñëpp di gërëm ñëpp li ma doon seen émission keppaaru mag ñi ngeen doon ko topp fii ci seen télé réew mi TV mm-hmm. seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ngeen àndaloon ci kàddu gi lu ci jub yàlla la lu ci dëng mata di doomu aadama la mm-hmm. in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu